Salut les amis de TV et de Babo Show. Merci encore Gaël, la confiance renouvelée. Hein. Merci de vous des like, merci de vous des abonner. Merci également de baisser des commentaires, plaisir renouvelé chaque fois, de partager des informations, inbox sénégalais, qui fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal, et pas Rokorokari, Gongorari, Ninglen de Diaye Feu, Ninek également, qui l'hôpital et train de Février yàlla na suñu borom fakk seen bopp yow rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delawaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi ndaw si te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des sportifs et l'actualité en continu gay yi actualité bi ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom donc maillot équipe nationale du Sénégal yi ah fuite yi premier yi jëkk génn ah donc ñu fas yéene leen ko war jox leen ay détails yi nit ngeen joxe ci seen xalaat mais laata boobu encore une fois comme je dis ah nous disons tous non au paris sportif parce que limi limi li de yàq dafa rek maa ngi suivre actualité gis ben banquier bo xam ne fukki at ak la 28 ans mu daal di détourné lu tolloog 5 millions pour jouer ko ci paris sportif tey fi mu mi ngi ci kasso bi. Alors nous connaissons ñaanal kenn kii nag gars le plus jeune vieux le plus jeune vieux là, ko tuddee il Gok a fi mu il a na 29 ans là, il nee na 29 <laughs> ans quoi Basu Gok Basu Gok dégg ñun ñu nee na ñun ñoo ko ko ah, ko le Camerounais l'international Camerounais kii boo 29 ans il xanaa Sadio 18 ans là, euh, Elias Ben Seguir moi le seul joueur africain bon xam ne bokk qui ci finaliste Golden Boy. 2024 muy meilleur jeune joueur donc mi ngi ah, Ben seguir mom ah, sincèrement pour man Ben seguir quoi par rapport à performance ki que di donc également me permet, deux ans après presque deux ans après bon blessé donc reprendre normalement entraînement il pas quoi Paris Saint-Germain même bu fekkee ne kañ commencé football dëggantaan waxaguñ ko mais daal mi entraîné normalement na commencé dañ ko qui, également nga donc ah, location beaucoup ko ëpp <laughs> ne fay location moo ëpp que parce que je suis khalis xaalis taxul mu ñëw Bordeaux l'international anglais ah, du jarne du côté donc de Liverpool et tout Qui n'est Lionel Andrés Messi mom la suis Marca tab mu def ko le meilleur le joueur le plus titré de l'histoire du football mo ëpp ay titre def ko lu goat mo lañ def lu goat ah donc mo ngoog wa wa Ronaldo yeeg yooyu ah xam naa da ngeen xataraay ak wa Messi seen biir xuloo leen ah ma ngoog donc mo ngoog ki nak di Ronaldo ak euh, Nani ñooy les seuls joueurs yo xamne generation génération 2008 bu Manchester ba jëloon euh, Ligue des champions ñom ñaar rek ñoo ci des di jouer ba legi ñu ngi Nani ak Ronaldo les deux portugais sino ñi si des gaay gars yi ah boo leen xamee ci photo bi ngeen wax ma ñom ñëpp dal joué tuñu ki nak di Jude Bellingham donc Adidas génne na ay dàll ah signature Bellingham ngeen gis ko nii ah daal yi moom gis ngeen ko ni ko ko defalee donc Adidas ko génne avec le B ngeen mën ko ci seen donc di ngeen gis léegi zoom bi euh, nga xam ne moo Bellingham moom euh, ak Real moom il a franchi une autre étape gis ngeen ko moo nekk nii ah donc daal bi mooy daal Bellingham ah daal bi rafet na lool lool lool mu ah, ak ak or biñ ci def ni doore bi donc euh, voilà que lii daal Adidas fi ne ñoom nekk ci promotion bu baax a baax Adidas Nike moo <laughs> ngoog ñun moom ñu ngi ci Puma dañ ah. ci pendant ce temps nag ki nga donc ah, Inigo Martinez nee la meilleure saison de sa carrière donc moom gis ngeen dafa profité ci blessure Araujo ak ah, di imposer il s'impose et sincèrement début de saison bu phénoménal la nekk di def jamono ji kii di Inigo

mongo ngo gis ngeen li euh, ki tak Marquinhos nak ak euh, Vanessa Emery moy seen médaille ki nak di Chancel ba légui nak réintégré nañ ko dans le groupe de l'Olympique de Marseille xam ngeen ne coow fi amon ba ñu écarté ko tout nekk wax nañ ko mu ngoog euh, Chancel ki di la justice de Diana donc mongo ngoog dellusiwaat na donc ñu nak ci yenn contour ak la waxtaan bu jëmee li ëpp solo daal mooy que ne moom dellusi na et ça c'est une très bonne nouvelle pendant ce temps nak hein, ki ken do leen ko présenter hein. donc Stroman moom daal fini mu ne nay carrière ah, il a arrêté sa carrière de footballeur donc mongo

donc moo dina leen jox idée un peu ci mayo Sénégal yi nu mu war mel gis nga ko man dama def ay dunq laa ci gis de dama xam nag Sénégal mo kañ lañ commencé am dunq ñun ñu xam ñun ndax gën dem dunq loolu laa mu si xaw ci jaaxal ko ah du ñoy dunq ta amuñuy dunq <laughs> loolu moo ko léegi nag bi nak moy blouson ya ah, premier blouson bi ñu gënné donc mi ngi ni Puma dal mi ngi fuiteel nak nak yi donc voilà xam naa Sénégal yi dañu wax mais man moom sama seen moom dañuy def promotion comme ni wa Cameroun def quoi jël ben Boubacar ñass ma ngoog wala beneen doomu Sénégal jël ñenn boole leen jox leen parce que yi maillot yi ñu def moom la ñuy gën a jaay sax que maillot Sénégal yi donc ma ngoog si ngeen ko donc le dos de blouson de l'équipe nationale du Sénégal yi nga xam ne daal gars yi fi mu ne nii moom la Puma waneegum en attendant novembre bi incha allah bi ñu waree maillot yu bees yi les amis li moo nekkoon information yi leen bëggoon jox hein, c'est toujours un plaisir de vous servir way leen di like way leen di abonné on avance ensemble dans la magie de Baba et des sportifs yi bu leen fàttali nag li nga si mën a jàppee mooy abonné like partager commenter sur sur cloche notification vous sur baaxee le la ba vous suñu la gars